ci firi bi ñuy firi sura fatiha ñoo ngi woon ci aaya ñetteel bi na kon ci maliki yawmi diin ci àjjuma yi weesu firi woon nañu luy maanaam maliki yawmi diin bu dee maliki nga jàng ak bu dee maliki li ci nekk luy maanaam yi tey insha allahu taala ñu ñëw ci yawmu diin luy maanaam yawmu diin ak diinu mooy fay fii la la fi fekk ak diin baat la bu bari ay siidu lool sax waaye fii moom fay dafay fekk yow diin mooy bisub fay bi bisub fay nag ab bis la bu mag boo xam ne suñu borom yàlla moo ko wut muy bis bu yàgg a yàgg boo xam ne da cee fas yéene dajale nit ñi ñëpp la ko tàmbalee ci ki jëkk a am muy aadama alayhi salaam ba ci kii mujj judd ci kaw suuf ñoom ñëpp yàlla dina leen dajale ci benn barab góor ak jigéen ñëpp teew fa mag ak ndaw ñëpp teew fa kenn ku nekk la nga defoon ci lu baax mbaa ci lu bon ñu fay la ko loolee mooy bis boobee moom lañ tudd yowmu diin mu ngoog moom lañ tuddee bisu bi muy yowmu diin bis boobu nag jullit bu ne am na ñetti yëf yu ko war ci bis boobu ñetti yëf yooyu déglu leen ko bu baax te kenn ku nekk ci ñun bu fi jógee fas yéene defal itte ba ñetti yëf yooyu nga xam ne moo ko war يوم الدين ولا بس الطيب ولا بس تنك نبت يفلي محملا فسحب جسلين في جك ما يجمكو يجم نسم برا ويا الله موقع وقت القرآن فكن دقلا لبن تيس تساكر نجم نبو باها باها من يوسف تساك أمش ولما يجمكو نارا جمعي نجمني mbolem li yalla wax ni ni amna ci ay mbir ak yef جس بومو ولا يمنك على محمد صلى الله عليه وسلم وحنا أن أي يف أكيد جس بومو لازم يف أن أما أي يف أكيد يلا كلنا نتم وحنا أن جس بومو أجرا أني ودمنا الجنة جمكو ودمنا السفر يجمنا سفر لو أن لا الجنة لو أن لا ودمنا كير يا خمنا ولا أي كيد يا خمنا sa borom yàlla da koy génneloo malaaka yi bis boobee kenn ku nekk di jox la sa téere woo xam ne doo ko ubbee fekk sa saw tur ak la nga def lépp ci lu baax ak ci lu bon nga gëm ko nga gëm ne bi am na sa yàlla moo na ko wax ci alquran boobu yi nga xam ne mu ngoog daf koy indi borom yàlla dina dina ñëw ànd ak malaaka ya waye nak nan lay ñëwé loolu moom sunu yoon ñëw ci te mun ñu ko xam ci ñu ko laaj te te koo laaj it ko tont laaj bi bidda ala jëm jé tont ak réer la waaye ci suñu borom yàlla ci jëmmam jëmam ji fàlle ge kenn du ko wax dara la kenn xamu ca dara mu ngox la mu nga xamal ci bopp yi dong la mën xam te mooy asla ci ay mëna taaram ak ci turam dañu nañu yàlla gindi waaye nga gëm ne ginnaaw sa borom yàlla wax na ci alquran wa jaa rabbuka sa borom yàlla ñëw nga ngoog wal malaku malaaka yi tam ñëw nga gëm ne kon dina am mu na muy am nekk nga bañ saa jéem a dugg nga gëm tam peese yàlla dina peese jëf yi jaam bi asalaamaaleykum wa rahmatullah kon noo ngi ci nekk ci mbir yi nga xam ne jullit bu ne war na koo def ci yawmu diin wala bis penc bi wala bisu bi ñett yi yooyu dafa mel ne ñaar li ci njëkk mooy nga gëm ne bis am la te dina ñëw ndax yàlla moo na ko xamal ñaareel bi mooy am na ay mbir yu yàlla ak yonentam sallallahu alayhi wa sallam wax ne dina fa am ak ay yëf yu fa ne nga gëm yëf yooyu am na mbir yooyu tam dina am noo ngi toll woon ci lim bi ci jëm teese gëm ne suñu borom yàlla dina teese jëfi nit ñi kenn ku nekk la nga def la ca baax dina ko teese la ca bon dana ko teese mu ngoog nga gëm loolu gëm tam euh, kawsara mbarkan kawsara wala déegub kawsar mu wolof déegub kawsar la ñuy wax ab déeg la bu yàlla may sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam yal na nu bokk ci ñu koy naan sayidina muhammad dina ko tàpp di séddale xeet wi yal na nu bokk ci ñee nekk ci wetam ndeyjooram mu bokk ci ñi ña muy jox yal na ko yàlla defal ñu ñëpp ci yërmande man baaxam gëm ni euh, euh, siraat siraat am na siraat nag euh, boroom xam-xam yi wax nañ ne mooy mooy siraatu mustaqim ji ci àdduna rek moom la ko gàll ko ci kaw naari jahannam mu nekk ab pom ab pom la boo xam ne bii euh, ñëpp dañ koy jaar ku ca jaar nag te fekk ni nga jaare woon ci na da ngay jàll dañu yàlla boole ci nag te fekk nekkoo woon ci yàlla nangu parce que gannaaw lislaam jeneen diine amatul nekk woon ci lislaam wala ni nga ci nekk bokkul ak ni yàlla santaane su boobaa boo yéegee ca kaw siraat da ngay mujj daaw ci biir naaru jahannam yàlla ci yàlla musal loolu lépp ak jullit war na koo gëm ci yawmal qiyaamati wala mooy li gën gi li gën gi mooy nga waajal ko yawmal qiyaamati kat def koy waajal kenn du ko gëm rek am na ci saxaaba ku ma sa fekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci jàkka ji muy xutba mu dog xutba ba ni ko ya rasulallahi ana kañ la bis ana kañ la saa di taxaw kañ la bis sëñ waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da ko ne loo ko waajalee pour mu xam ne da ko war a waajal te xam ne góorgóorlu ci waajal ko moo gën a ñor di laaj kañ la ñu ngoog waaye saxaaba ne ko xanaa bëgg la xanaa bëgg la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tontu ko ne ko kenn ku nekk yaa ku nga bëgg yéenay bokk fu ngeen ne loolu nag am na ñaari maana am na maanaam adduna ak moom àllaaxira yaa ka nga bëgg yéenay bokk fu ngeen ne mooy maanaam ci adduna si yéenay bokk lu ngeen di def ndax man ahabba ataa képp ku bëgg nit rek da nga ko topp kon ndox soo bëggee sayidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam faaw nga topp ko loolu moo tax bu ñu fi déggee ab daayira sax gannaaw la gën naa bu naan dañ ko tuddee topp na bi topp na bi boo xam ne bi lañ koy topp lépp mooy bisu gàmm nga woote ko te yonent moom mus ta gàmm sallallahu alayhi wa sallam mus ta santaane gàmm mus ta bis fu ñuy gàmmoo yow nag nga dem da ngay woote bisu gàmm te gàmm ko góor naa jigéen ñi dañuy jaxasoo di di di di màgge di way di def kenn xamul loo xam ne saxaaba yi xamuñu ko sayidna Muhammad xamu ko alayhi salatu wasalaam yàlla santaane ko fenn ci alquran yonent bi seen sallallahu alayhi wa ko fenn ci sunnaam defu ko defluwu ko ne la nag da ngay topp ne mooy mooy bisub gàmm boobu ba déwénati loolu ma xam ne lii ak cànkute la ma woo xale yi ni leen léegi nag ko tuddee woon sopp ne bi ko topp ne bi sopp ne bi dañ ko tuddee woon sopp ne bi boo xam ne dinañ dañ koy fekk lépp mooy gàmmu ma xamal leen ni leen daal sopp ne bi moom mandarga mooy sopp ne bi kon boog sopp leen ne bi pour mën a mandarga ne yéen a ngi koy sopp te bu ngeen toppee nabi sallallahu alayhi wa sallam du ngeen dem di def lu mu daawul def te du ngeen bàyyi lu mu daa def danañ leen jàng alquran ak sunna te tënku te loolu mooy mandal day sopp sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon boog bis boobu euh, euh, euh, boo saxaaba boobu daa wax yonent bi ne ko al maru déet yonent bi ko wax ne ko al maru maa man ahabba kenn ku ne yàgg nga sopp yeneen bokk bu ngeen ne loolu am na maanaa ci adduna ak ci àllaaxira ci adduna ki nga sopp da nga koy topp boo ko toppee bu dee ku baax bu dee ku bon ci àdduna moom kenn la ñuy topp la mooy Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam dina am ñu ko topp dina am ñu topp Iblis lu yàlla musal ci Iblis dana am ñu topp seytaane nit ak seytaane ma képp ku jaarul fa fa Seydina Muhammad daan jaar sallallahu alayhi wa sallam jaaru fa ba nag ku yàqal jaar fa bu ko defee nag kenn ku ne ba àllaaxira nga topp bu àllaaxira bu fekkee mën a aljanna ginnaaw yéen a bokkoon lu ngeen di dox yéen a bokkoon fu ngeen di ci adduna bu àllaaxira ngeen bokk fu ngeen ne bu fekkee ne bi àllaaxira jot na saxaaba boobee nga xam ne toppoon na sayidna Muhammad alayhi salaatu wasalaam day nekk ca aljanna ci wetu sayidna Muhammad yal na yàlla may loolu yal na ko yàlla may yal na yàlla musal ci àllaaxira jot ñu defe na noo ci nekk dem yóbbu suñuy jëf ñu xool ko ne ñuy jëf bokkut ak yéen santaane soxla wuñ ci dara yal na yàlla musal ci googu pertement kon boog àllaaxira daf koy waajal kon boog yow mi nga xam ne gëm nga àllaaxira mbirum ñetteel mi la ci war mooy nga waajal ko noo koy waajale xanaa mboolem yi la yàlla sant akub yonentam nga xam ko te def lépp loo mën ci jëfe ko mboolem yi la yàlla sant akub yonentam mboolem yi mu la tere nga xam leen te li la koy xamal mooy jàng ak laaj nga fexe ba xam leen fexe ba bàyyi ko fa boo góorgóorloo ci jëfe ndigal yàlla ko yonentam sallallahu alayhi wa sallam góorgóorlu ci bàyyi ay tereem la ca topp mooy nag ngay xaral di jégglu yàlla li nga xam ne moom nga xal te manqué ci ay manqué manqué yoo xam ne dañ koo tëyit mu nga defee loolu daal mooy li nga xam ne li moonu war bu ko defee itam képp koo xam ne li ngi lay wax ci yemul xiyaam ci bisu tay ba naa ne lii ak lii ak lii dana am te yooyu mu lay wax naa dina am dafa safaanoo dafa wuute ak yi yàlla ko yonentam wax bu ko gëm képp ku leen wax ne nangam ak nangam dana am alaxira te nangam ak nangam yee muy wax alaxira saa borom yàlla waxu ko sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxu ko loola ëpp naa gëm bis la ko waxee la ca war a nga weddi ko te xam ne loolu du wuut ak wax yàlla ku wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu ak seetaane rek la yonent yàlla musal akuk cànkte ñu nga loolu mooy yi war ci yowmu diin su ko defee nag mu xam ne yowmu diin benn ponk la bu bokk ci ponk liimaan ponk gëm yàlla mu nga yow mu diin yow mu ko gëm gëmin wu mel nii la bu bokk ci ponki gëm yàlla gëm yàlla dafa am juróom benn ponk yoo xam ne sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam ko jàngal keroog ba nga xamee ni bi jibril ñëw na di ko laaj ay laaj yu bokk ci diine ji bokk na ca laaj ya ko jibril laaj da ko ne أخبرني عن الإيمان أخبرني عن الإيمان وحنا إيمان مويلن بجيب لا جاي من إلا محمد صلى الله عليه وسلم لك وحنا الإيمان مويلن فريق هذه لن لك عند محمد صلى الله عليه وسلم قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه دفع وحنا إيمان موي نجم يالله دمي وكنت به نجم سيرين يوحي بايك وكو أسمان نجم يلا أمنا جم أي ملكانا ويسلفو لولو مي فانك بوجك بي فانك جم فانك نياري دي موين نجم يلا واتكنا أي سير أمنا كيرو خم أف يرو خمون ينك خم دال فنا موي صحف يواتي ونشين تالي إبراهيم يخي وقت صحف إبراهيم التوراة الإنجيل الزبور القرآن يوم خمنا من لين دقب يوري الكتب السماوية بس تيري بو خمنا دي سخنا في القرآن نيا الله واتنا كتب يننت ولا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وحنا نواتنا انت كتب يننت نزم كون ننك وخه لما الإيمان بالكتب ما يفنك بيارو بس يفنك جم فنك نكتل بنين جم مراكي جم نيا الله رفعت أي مراكي يبري بري بري يبري لوسا يؤفني في فوف يتكو أسمان أكتكو سوف ملاكي لزم لين ñañ ca tudd nga xam leen jibril ca la bokk mu nga mikail ca la bokk israfil ca la bokk ñett ñooñu tudd nañ leen nga gëm ne itam malakul mawti mooy malaaka mi jël ruu yi ci la bokk nga gëm ne ridwaan mooy mooy mooy malaaka mi ñu dénk aljanna mu yor caabi aljanna ca la bokk nga gëm ne malik malik mooy malaaka mi ñu dénk safara bëkk na ba safara yàlla yàlla musal ci malik ak lañ ko dénk mu nga nga gëm ne ci la bokk malaaka yépp daal nga gëm leen mu nga gëm yàlla gëm téeréem yi gëm malaakaam yi moo mooy ñett ñeenteel bi mooy nga gëm yonent yi nga gëm ne sa borom yàlla dafa yónni ay yonent ñeenteel yonent yooyu yonent yàlla aadam ci aw xeetam yonent yàlla siifa nuux alayhim salaam mu ngoog ibrahim muusa isa ay yonent yu bari lañu yonent yooyu ñoo bari lool sax waaye ki ci mujj tey ki ci gën sama sunu cër moy sayyidna Muhammad sallallahu alayhi wasallam sallam ñun yàlla danoo tànnal yonent bi gën ci yonent yi bi gën ci mindaafam yi daf ko muy yenen ci kon boog danoo wara a sant yàlla ci loolu te lan ko wara a moy fexe ba topp yonent ko bobu alayhi salatu wasalaam xam fu mu jaaroon ñu jaar fa fu mu tegon ab tànkam ñu ci sunu tànk fu mu jaarul mu bañ fa jaar lu mu def wala mu santaane ko ñu def ko lu mu deful wala mu tere ko ñu bako ko loolu mooy li mu war li ñu war a njukkale sama borom yàlla ci tànnal bu mu tànnal yonent bi gën ci yonent yi ak diine bi gën ci diine yi yàlla ci kon boo gëm yonent yi mooy ponkum ñeenteel bi boobu juróomeel bi mooy gëm bis pénc bis pénc goog bokk mooy ponkum ñeenteel ci ponk gëm yàlla moo ponk juróomeel ci yàlla mooy ponk juróomeel ponk juróom benneel bi mooy gëm ak dogal la ca neex ak la ca naqar loolu moom la sayyidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam tontu jibril alayhi salaam ba mu wax mu lii maanaam gëm kon boog gëma ngoogu di juróom benn ponk ponk bu ci nekk yow mu ko gëm dafa am lu mu laaj ci ay pas-pas ak ay wax yenn saay ak i jëf ak i bàyyi lu aju ci pas-pas yi ak ci jikko yi ak ci jëf yi ak jëflante yi loolu lépp jullit bu nekk war na ko jàng te gëstu ko te laaj ko ba xam ko ni ka ndax boo lay xalaat mën a bokk ci nag aljanna danañ ci yàlla bind لا يؤمنون بها أو يزعمون أنهم آمنوا بها ولكن هذا الإيمان المنظوم لا تصدقه أعمالهم li ëpp ci nit ñi li ëpp ci nit ñi dañoo ay mbir yu bare bare bari ci àdduna te yëguñu ko li ëpp ci nit ñi dañoo ay mbir yu bare bare bari ci àdduna te yëguñu ko mu ngoog ay mbir yoo xam ne dañ ko waroon a gëm ñenn ñi gëmuñu ko ñen ñi nga nee nañu gëm nañ ko waaye la ñu wax wax ja dëppoowul ak seeni jëf loolu rek lu mat a bàyyi xel la kenn ku nekk war naa xam la mu war a gëm te war na koo gëm te jëf yi te war naa dëppoo ak gëm nga danañ ci yàlla dimbali mhm. nit ci li mu gëm faaw mu jëfe gëm ak jëf la nga gëm yooyu ñaar moom mosuñoo tàggoo te mu tàggoo الإيمان جهل يؤدي إلى الانحراف والعياذ بالله فكثير من الناس يجهلون أن bu ko defee nag nit ki mën naa gëm dara waaye ngëm ga nag ak réer dugg ca yàlla yàlla mos ci loolu nga gëm loo war a gëm waaye nag ni ñu ko gëmee ak réer da cee am su ko defee loo ca def rek du doon noonu yal nañu yàlla jindil boppam yal nañu yàlla fekk lii waaye nag ku bëgg yàlla jindi la da ngay jéem a gindeeku da ngay jéem yàlla fekk la ko kenn ku nekk ci ñun na xam lan nag la war a gëm ak bu ko gëmee ngëm googu la ak lan la la laaj ci ay jëf jëf yooyu nekk ci di nab na bi ba dee ñëw te xam ne léegi malaaka mooti ñëw ñu bari ci ñun xamuñu ne sa borom yàlla bi mu leen gi juddul ñu judd ci seen biiru yaay ñëw ci kaw adduna dafa am lu tax ñu bari ci ñun dañoo yëgut ni bi leen yàlla di sàkk ñu judd ci seen biir yaay ñu bari xam na ñëpp xam nañu bokk mbaa ñu gëm bokk jullit ñëpp xam gëm nañu ne yàlla moo leen sàkk ñu juddoo ci seen i ndey waaye nag ñu bari dañoo xam ne ba leen yàlla di sàkk dafa amoon lu tax ba leen yàlla di sàkk lépp a tax loolee tax yàlla sàkk leen nag dañ ko war a jéem a xam te gar seen bakkan bu baax jëfe ko te moytu lépp luy tax duñ ko jëfe ba mu am na mu war a amee. wa hiya ibadatu llahi taala قال تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون نيكخ يالا ساك نيت ني نيب واخال نونكو بوبم موي نو جامكو سان بروم يالا نينا بامي ساك نيت اك جن دا لينا ساكون فور خلقت الجن والانس الا ليعبدون يالا ني دار تخول ما ساك جن يك نيت ني لودو نيب ناج ما جامو كون دوك جولي دور نا خامني يالا بام كوي ساك مي جودي سي نيب ak bayam ngir mu jaamu ko taxone du ngir mu doonu baykat kese budul jaamu yàlla wala tàmmkat boo xam ne dafa ne ne jaamu yàlla moom yoonam nekku ca wala mu doon sëriñ boo xam ne day defe ne moom topp yoonu topp yoonu sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam aajowu ko wala mu doonu nu ngoog képp ku yàlla sàkk ab jaamam nga li tax mu sàkk la mel nga jaamu ko danga ko war a jaamu walakin kathiran min annaas albaahum talabu waaye ñu bari ci nit ñi ñu bari ci nit ñi am na lu leen fëréw li ba tax talu ñoo jaamu yàlla ni mu ware talu ñoo jàng sax lenag lenag mooy jaamu yàlla lan fëréw li kat weesuwul wut lu ñu dunde wut lu ñu dunde ak lu ñu dundale seenu njaboot wut lu ñu sol ak lu ñu lekk ak lu ñu laal ak lu ñu sol ak suñu dëkk adduna biñ ko awee ba naat ku daal di ñëw ci martaba bu ñaareel bi te mooy wut lu ñu neexale yooyu ak li ñu ko rafetale ba tey adduna jëkkante àdduna rek nekk ci di daw di ci daw di ci daw li taxoon yàlla sàkk la moom nekkoo ca fettoo fi nga nekk ba xëy màggat wala malakul mawta ñëw bala ngaa màggat jël sa ru tafek liggéeyloo dara àllaaxira loolu yàlla ñu ci yàlla musal وجهلوا أيضا أو تجاهلوا أن الله تعالى أرسل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم لكي يبين للناس معاني هذه العبادة. بتاي دوك نتي ليغا خامن نيت ñu bay dañ ko réel am na nag ñoo xam ne réere wuñ ko waaye dañuy tey taylu ñoo ko tey dañoo ñu bari xamuñu ne wala ñu ngi tey taylu ci réew sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom la yàlla yónni pour ñu leeral nu pour mu jàngalu ñun jaam ñi jaamu googu ya tax yàlla sàkk nu suñ ko dee def nan lañ koy defe lan nag la nag lan mooy jaamu yàlla lan nag la nag lan lanu war a def ak lanu war a bàyyi pour nekk di jaamu yàlla sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam da ko yónni ngir mu leeral lool yi bu la neexee itam neen sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla dafa wàcce ci moom aw yoon woo xam ne topp ko mooy tax a dem aljanna ñàkk koo topp mooy tax a dem naaru jahannam mu ngoog yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam yu bari xamuñu ne yàlla dafa wàcce ci moom aw yoon woo xam ne daa bëgg jaam ñëpp jaar ci yàlla mu yàlla may tawfiq ba nu jaar ci mu ngoog aha ñu bari xamuñu ne yàlla bi mu defee loolu mu defee ñaar yi sàkk na nu ngir ñu jaamu ko yónni na sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour mu jàngal ñu munu koy jaamoo da caa teg nag wut ay malaaka nit ku nekk yàlla boole la ñaari malaaka malaaka mu nekk ci sa mbaggum day joor ak mu nekk sa mbaggum càmmoñ di bind li nga wax ak li nga def cee jëf yu dëppoog ndigalam ak li nga wax ak li nga def ci ay jëf ak wax yoo xam ne dëppoo ak ndigalam léegi ay tiyaaba lii di ay bàkkaar loolu tam ñu bare bari xamuñu ko réere nañu ko waaye nag ku nekk xam ne ba mu ko yëgul ba mu ko yëgul ñaari malaaka yi ànd ak moom ñii ci mboggum day yor ni yor bindukaay ak lu di bind ñii ci mboggum càmmoñ mi ne ko noona di bind ay tiyaaba ak i bàkkaar ba noppi nag yàlla def meneen mbir gannaaw bu mënu sàkkee ngir ñu jaamu ko yónni ab yonent ngir mu jàng ñu niñ koy jaamoo te mooy sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam wut nit ku ne mu wutal ko ñaari malaaka yu ko topp di bind ay waxam ci jëfam da caa teg nag ràññi la ab bis bis bu rëy bu ñuy wax yow diin boo xam ne bii dañuy dajale ñun ñëpp kenn ku nekk mbind yooyee malaaka yi doon bind mu génneel la ko nga fekk ci mboolem loo ma sa def mu nga ko loolu dañ ko réer rek te loolu mooy yow diin ma ne mooy ma nekk yow diin aha الأعراب فلنسألن الذين ثم برم يلا لني وحكي سوت الأعراب فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين يلا نعم وقال قلتنا بس بوخنا الدين نوي سو دينا لات توفلي أكنسي سما جاني دينا لين لات لما لن سنتون دخ دخ منكو لما لن ترون دخ باي منكو كن نكون يكسي منكو am na rendez-vous ak suñu borom yàlla dana taxaw ci kanamu yàlla moom dong yàlla dong bàyyam du ko fekke yaayam du ko fekke soxnaam du ko fekke sëriñam du ko fekke ab xarit wala noon du ko fekke genn kilifa du ko fekke kilifa alaxira genn kilifa fa abu rabbu samawati wal ard kenn ku ne ci ñun dana taxaw ci kanamam mooy li muy wax naan amma man xaafa maqaama rabbihi maqaam boobu mooy taxaw bi nga war taxaw ci kanamu sa borom yàlla mu rek la la laaj la li mu la santoon loo ci def ak loo ci defut lu mu la tere woon loo ci bàyyi ak loo ci bàyyiwul loolu mooy fala yasalanna alladina ursila ilayhim ba nekk wëlbatiku laaj yonent yi wala nasalanna almursalin yonent yi itam dana leen laaj kenn ku nekk ci ñoom ba ma lay yónnee nga wax la ma lay yónni saw xeet lu ñu tont yàlla ne na faaw ma laaj ko fa la naqusanna alayhim bi ilmin mu ne tayit bu ma leen laajee dinaa leen nettali la ñu doon def man xam naa ko te daa leen ko nettali وما كنا غائبين دخت بني دب كوا فدو ما وان مانغ فا يلا نين لي دخ لب أدري وخ لب من في جس دي كو جد ولا خرادنا نكو لاك ني وخ كو تمام دو نكو أها سامبرم يا كتنا سبوا بانك والوزن سيف تيابك بكا كذي تيابك جنا بري قدم الجنة كذي بكا جنا بري قدم سفر والوزن سيف يوم إذن تبي الحق بوي دق سيف رك إيه koo faman taqulat mawaasinuhu koo xam ne kii say balance yi tiyaaba say balance yi yiw lëng na fa ulaa'ika humul muflixuuna ñooñee ñooy ñu texe ñooñu musgaluñ ci yàlla boole wa man xaffat mawaasinuhu koo xam ne nag sa balaasu yiw sa balaasu tiyaaba dafa dafa weef balaasu yi bàkkaar yi da ko ëpp fa ulaa'ika alladina xasiru anfusahum ñooy ñoppata seen bopp ka perte boppam mooy ki nekk ci adduna si di daw ci gannaaw adduna wala muy ñàkk jaamu yàlla wala muy jaamu yàlla aw jaamu ñu woo xam ne bokkut ak la yàlla yónni sayidina muhammad alayhi salaatu wasalaam day jaamu yàlla te jaarale ko ci kitaab ak sunna kay dang dañu ci gannaaw adduna ba dee ñëw te liggéeyul lu allah xara dara wala muy jaamu te jaamuwul yàlla ba dee ñëw yóbbul lu allah xara dara wala muy jaamu yàlla te deful ko na sayidina muhammad jàngalee salallahu alayhi wa sallam ñun ñëpp kenn ku ci nekk daa xasita perte ulaayka alladina xasiru anfusahum ñooy ñoo perte seen bakkan ñoo perte seen bopp ñax dañ leen di sànni ci naaru jahannam yàlla ñu ci yàlla bi ma kaanu bi ayatina yazlimun dañ leen tax a perte mooy li ñu nekkoon di tooj ak di wàññi sama aaya yi mhm. loolu lépp ma wa te mooy yàlla da doon sàkk ngir ñu jaamu ko ba nag yéen ak yeneen ngir mu leeral bu ñu koy jaamoo wut ay malaaka boole ko ñu muy dund Allah muy dund ci bàkkaar wala axra nag bu fay ñëpp seeni jëf yàlla la wax na ko ci ay place yu bari ci alquran bokk na ca place yooya suratu xaas suñu borom yàlla waxe ne wa laqad xalaqna al insana ñun yàlla noo sàkk nit wa naalamu ma tuwaswisu bihi nafsu nun nag duñ ko sàkkee ñun yàlla ba noppi xam nanu la muy def xam nanu la muy wax xam nanu sax ba xam la muy xalaat yàlla nee na li ñu yellele ci sam xel nga di ko xalaat sax xam na ko ونحن أقرب إليه من حبل الوريد فمن يلا noo gën a jege nit ci buumu xolam buumu xolam xablul warid muy buum bi nga xam ne moo jaar ci ci biir ci digg loof yi wàcc ci xëtër yi nga xam dem ci xol bi nga xam ne bu daggee nit ci dee buum googee lim lay jege jege jege sa borom yàlla nee na moo la ko gën a jege mu ngoog id yatalaqa almutalaqiyaani an al yamini wa an al shimaali qaid nee na jamono yi nga xam ne bii ñaari malaaka yi rafet réceptionné yaa ñaari malaaka yi nga xam ne menn baa ngi ci ndeyjoor menn baa ngi ci càmmooñ kenn ku nekk di réceptionné li nga wax ak li nga jëf di ko bind mu nga id yatalaqa al mutalaqiyaani an il yamin ñaari malaaka yi réceptionné menn baa ngi ci ndeyjoor mu nga wa an istimaali menn bu nekk ci càmmooñ qaid kenn fu ne malaaka toog fa mu nga min xawdin illa ladayhi raqibun atid benn kaddu képp du ko wax dara du malaaka ma nga ca wetam moo xam ne wi ma ngi koy déglu ak di ko fuklu te itam pare na la muy bind pour su baat bii daanu rek mu di ko bind jëf bi itam jamono yi mu koy jëf booy noppi rek malaaka bi di bind lépp loo ñetti su baat bi daanoo malaaka bind na ko kenn ku nekk ci yéen nga xalaat ne ba mu juddu ba mu juddoo ba léegi naa ko tàmbalee ci bi nga xëyee ba léegi rek bi nga xëyee ba léegi li ñu fi wax lépp xoolal ma xam mbaa jub na su jubee su dëngee malaaka dugg na moo ndax xam ne ko koo far ah da ngaa gis tey de dañu ko faral noo koy fare moo wax munoo koo far yal na yàlla jéggal ma ngoog ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق يعني نون لا نبكي دي دند muy wax malaaka yi bind muy def malaaka yi bind bëgg ndam jeex bu ndam jeexee nag sakaraatul mawti daal di ñëw sukuraat sukuraat ñëw mu dee mu ngoog bu ko defee euh, loolu mooy li nga doon daw mu ngoog li nga doon moytu ak di ko ragal ak di ko daw mooy dee day ñëw te doo ci mën dara boo deewee ñu suul la buñ la suulee dañ fa am ab diir bu yàgg lool ba soob yàlla yàlla xam ne muy toll war na fi xatu suuf bu ko defee nag bu diir ba ba jeexee yàlla daal di wax malaaka ba mu ëf buuf ko su ëfee buuf ko nag ñëppay jekk mu ngoog daalika yawmul wa'iid bis boobu mooy bi nga xam ne moom lay sëf ko ñëpp te bëgg ñëpp bàyyi ci xel yàlla nee na mi ngi nii sëf ko yawmal qiyaam yàlla ku mu sëkku nga war a ragal nañ ci bàyyi xel ñun ñëpp mu ngoog wa jaa'at kullu nafsin ma'aha saa'iqun wa shahiid bu ko defee bu ñu ëppee bufta nit ku ne day dekki jóg ñu woo leen nag ñu wuti suñu borom yàlla ñun ñëpp ñu jóg di dox te ku dekki kat yaramu ne ngay dekkee waxoon naa leen ni yawmul qiyaamati سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نينا يحشر الناس خفاة عراة غرلا يعني قال محمد نينا صلى الله عليه وسلم يتكت واخدنا دوم آدم انغا سخن ياري نف في يوم القيامة يبوا دكة يرمنا الهيدا كل نينا قلناه نينا دو أصل يري دو اللعب تفهم نينا قيدا أقومنا دورا نومنا دي مغاق خفاة تيتم تنسلن قيدا دو أصل قال xuyan te itam ab aat ngay doonaat nag na nga meloon ba nga dugugut néegub góor bis boobu sa borom yàlla day mer mer moo xam ne mus ta mer mer mu ne day te du mere te du ko mere si mukk bis boobu nee na moom la ñuy tëb ko su ko defee nag bis boobu bu kenn ku nekk jógee ci bàmmeelam nee na ñaari malaaka koy jiital wa jaat kullu nafsin bakkan bu nekk ñu maahu maaha saiqun wa shahid li nga ànd ak malaaka moo xam ne da koy jiital jëme ko ci sa borom yàlla ak meneen malaaka moo xam ne moom moo koy seere ne kii moo doon def nangam ak nangam kii moo doon bàyyi nangam ak nangam ci ay jëf yu baax mbaa ay jëf yu bon loolu lépp malaaka ma da koy seere ñu dem fa kanam sa borom yàlla mu ngoog malaaka ma wax la nga def génn téere te doo mën a am lay mu ngoog mu ngoog loolu boobu bis boobu yi mat naa bàyyi xel bu baax yal na nu yàlla dimbali ba nu bàyyi xel allah وقد خرج الإمام مالك في الموطأ أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شرفت فيكم امرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنه النبي. كم دقت يوم القيامه يقولون لهم سم بروم يلا تريتاركو لولو ما يجي كملنا خر خر الدك. كلولو جدا مك ان شاء الله تعالى. ونفقا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مملا يلا يوني ngir mu war ñu ñu koy jaamo sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam gëna dafa gàttal yëf yi ne topp leen ko rek in tutiuhu tahtadu ba ngeen toppee Muhammad da ngeen jub képp koo xam ne bëgg ngaa xam la ngay def baax na am bon na bëgg ngaa xam la ngay def compte na fa yàlla am compte fa yàlla laajal sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam soo ko laajee la mu la la mu la mu la mu la wax noona la wala seetal na mu daa def bu fekkee gisoo ko seetal ba xam ndax loolee ngay def daana ko def bu fekkee daana ko def kon noona loolu la yàlla santaane bu fekkee daawu ko def na nga xam ne moom la yàlla yónni te itam la mu def lu la mu def moom Muhammad sallallahu alayhi wa ak la mu def lu moom la yàlla sant Seydina Muhammad tam daf noo wax ni maa ngi gëm àllaaxira waaye maa ngi leen di bàyyee ñaar yoo xam ne du ngeen sànku mukk feek yéen a ngi ciy jàpp te mooy alquran ak sama sunna kon boog mu noonu ku bëgg a dem am aw lay جفن القرآن السنة والآخرة جنفك يو تبون سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بارنا فتنا مبارك أسمان السوف سو لي جنا يوم بتمي جارا نجت القرآن السنة كيف كل خم من الجار القرآن السنة كل من الدون كل من عند الله من الدف بارنا فكان مسام بارنا أمنا بين بسم الله بسم الله كم تخلي أم مسألة مثلا جلي تك تدن تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك ndax daf ko war a def amul su ko def mu dem gëstu andi ñaari wax mu ne ma sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam am na ay xadis yu ñëw ci buxaari ak ci muslim ak ci xadis yooyu dafa ñëw daanaka seede xadis yëpp la ñëw ne yeneen bi moom bu daan julli da daa teg ay yoo xam ci dënd bi sallallahu alayhi wa sallam waa ji nag teg ci ne ma waaye ci ngërum maalik jiw nee na diw nee na kenn du def loolu ci jullit farat ma ne ko ah da ngay bëgg a déglu diw ak Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam boo demee ci kanamu yàlla naan ko diw nee na ñu ne la man woon diw Muhammad kuy def dara war ngaa fexe ba xam ne lii Muhammad daana ko def la ko daa defee loolu moo tax moo balaa wax ci kanamu suñu borom yàlla loolu la wax sallallahu alayhi wa sallam bàyyee naa xam ne du ngeen sànq mukk fekk yéen a ngi koy jàpp mooy téere yàlla bi ak sama sunna aha moo tax ba xam ne boo laaxira kii ci fan sàngam la bokkoon loolu tekkiwul na loo koy tax dem aljanna mbaa safara aw ab fan boo xam ne ku ci bokk rek yow daal sële nga dootoo dem safara mukk boobu fan amut amut ba noppi nag xam ne ki ci tariqa sàngam la bokkon wala ci mbolo sàngam la bokkon tariqa bo xamne wala mbolo mo xamne ku ci bokk rek xasaan bo lay xëy ngay dem aljanna loolu nga xamne ne lay tax dem aljanna ndax muy tax dem sawara ni ko yàlla waxe ni lay amé mom neena day fessé ay jëf neena kenn ku nekk li nga jëf li ci baax lay fess fess ak la ca bon ca la ca baax moy la jëf bok sunna sayyidina muhammad عليه الصلاة والسلام لننشئ القرآن ولا وحي سيدنا محمد ولا ولا أي جسم صلى الله عليه وسلم لا لم ينو باخلة كم ينطف له محمد صلى الله عليه وسلم لن لا لم ينو باخلة غكلة ما يسلو آه، سيد مكو وحمنا ستبدن ببنا دم الصف سنة لدن سنة بنا ولا نغير ميت سنة لدن سنة بنا لبن بكجم من قلت لولو bayd woowu mooy mooy mooy mooy li yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax man ahdatha fi amrina haada ma laysa minhu fa huwa radd képp koo xam ne da ngaa fent ci diine ji ci mbir mi lu ci bokkul dina koy delloo du du la jëriñ dara. ولكننا اخترعنا متاعب اخرى غيرها بنينا عليها عقائدنا واتقينا منها سلوكنا في الحياه فقد صدقنا ان هنالك طرقا من اتبعها ادخله شيخ الطريقه من النار وادخله الجنه بغض النظر عن قوله متبعا لما لما انزل على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وهو الكتاب والسنه او منحرفا عنه. لك لي لي نجن اي اي القران ما تشركه سان برام يالله وخال كبكم سان في يوم القيامة ما يدق جيسي لي نجن يلا خمنا مو غنى وير خرخ بدن مقتل شطك مقتل loolu mooy li wér léegi nag nun danoo fent suñu yeneen i mbir yu bukkut ak yooyu jële ci suñuy ngëm-ngëm ngëm-ngëm yooyee ñu baasi ci sukkandiku ci ay jëf ak i bàyyi gëm ni loolu dañuy tax a dem aljanna mbaa tri dañuy tee dem sawara loolu nag ma bëgg avertir sama bopp ak képp koo xam yaa ngi dëgg kàddu gi li sama borom yàlla waxal ne boppam ci alquran من يجي لي ما يخاو يوم القيامة كنا لم واحد ما يخاو يوم القيامة لولا قدني كمون تدني كنا تكلمنا نجيبا فتاك بطن تولد تكنيو في يومي ما يلقى السنة يلا إن شاء الله جلدنا سنبرم يلا لنا دفن لي ننم بولو لكن يوم ني تقلقوا أي مولو يبرى برى برى سوسوان شيء أب تيجان لا شيء أب مريد لا شيء أب قادر لا شيء أباد الرحمن لا شيء فلاح لا ay mbolo ñu nak dañ ni tàqale julit ñu tasaare len ta xam ñu ne loolu bokkut ak lu yàlla sant mbooloo yu bari yooyu Muhammad bàyyi ko si sallallahu alayhi wa suñ borom yàlla wutal ñu aw tur woo xam ne dana koo boole ñëpp ñu jullit ñëpp turo mooy al muslimuun mu nga wax ñi yàlla wax na ne huwa samaakumul muslimina min qablu wa fi hada yàlla nee man maa tuddewoon maa leen tuddewoon ay jullit ñi bokk ci yéen bokk ak yéen pas-pas ca nit ñu jëkk ña mu tudd leen almuslimuuna ay way way gëm way jébbalu ci yàlla wa fi haada tey jiitam ci diine muhammad ji sallallahu alayhi wa sallam ma tudd leen almuslimuuna mooy ñi jébbalu ci yàlla te nangul ko yeneen ci yàlla boole tur woowu leen yàlla wutal de almuslimuun moom dañuy firee ci wolof ay julli ñun nag léegi fent na yeneen tur fent nañ tur yooyu nga xam ne kenn ku nekk moom la tudd am na mbooloom ay tijaan am na mbooloom ay ay ay murid am na mbooloo ay qaadir am na mbooloo ay ay ay mu ngoog am na mbooloom ay ay ay ibaadu rahmaan am na mbooloo al falah mu ngoog mbooloo yu na gàññ kee ab suufi la kee ab salafi la kee ab siixi la kee ab ixwaani la kee ab tabliixi la mbooloo mbooloo yu na gàññ te mbooloo yi yëpp bokkut ak islam bal yàlla wax moom mel mbooloo la mu def ci tuddañu al muslimuun war ko bokk mu jaar jaarloo ci benn menn ngir ñu jaar leen ci yoon wii mooy ak siraat al mustaqim ñu ma war ko mooy ko jaar te nag mbooloo yooyu mbooloo mu ci ne dafa wax ni te dafa gëm ni ak sëriñam moo yor caabi aljanna te ba laaxira moo ko yóbbu aljanna moo ko mos a gis ni ah moom mbooloo yi kon ku ci wax dëgg ginnaaw mbooloo mu ne dogu na ci ne ab sëriñ ab sëriñam moo yor caabi aljanna te ba laaxira moo yóbbu nit yi aljanna waaw loolu moom bu wuteeg li yàlla wax ci alquran nag lu mu ci jàpp yéen mbokk jullit yi maa ngi fàttali sama bopp di leen fàttali bis bu raglu bu rëy boo bii di waaj a ñëw muy yowmal qiyaam te bis la boo xam ne yàlla nee na dina yàgg dina yàgg xam siina alfa sana juróom fukki junni at lay yàgg bis boobu yàlla dina ci seet nit ñi ñëpp seen mbir bis boobu maa ngi koy sama bopp di ko fàttali bis boo xamee ne bii saa borom yàlla nee na dana wax ak nit ñi دانا واخ نين ني دانا ام ني واخال لين لقد جئتمونا فرادا نيونجين سي من يالا يين ني سي تاي داي ويسي لين ما فاي نيونجين سي من فرادا كين بار كين كما خلقناكم اول مره نما لين تاتيون كين بار كين ويسي لين ما كين بار كين وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم لما لين جوخون سي اي خيول سي ادنا داي باي نينكو غناو باي نينكو خريال باي نينكو واتايا bàyyi ngeen fa alal ja bàyyi ngeen fa xaalis ba lépp bàyyi ngeen gannaaw ja wiis na mu ngoog wa ma nara maakum sufaakum alladina zaamtum annahum fiikum shuraka te itam ñi leen di ñi leen waxoon ne du àllaaxira ñoo leen di ramm yóbbu leen aljanna man de gisuma leen gisuma ko jéem a ñëw ci man pour jéem a ramm kenn de gisuma leen de mu ngoog ñi leen waxoon te leen seen wax dong la ngeen ne ñoom ñoom ñoo leen di ramm ñooñu day mboolem buum yi leen takka woon ak ñoom buum yee dagg na laqad taqattaa baynakum buum yee dagg na mu nga wa dalla ankum maa kuntum tafamun na li ngeen doon wax kay wax ñu teguwul ci samay toogu waaye man loolu lépp nag léegi réer na leen wax ji réer na leen wax jee sànku na lii yàlla boo waxal boppam ci alquran kon boog maa ngi fàttali sama bopp bis boo bii leen ko fàttali yéen ñëpp di ñaan suñu borom yàlla هي ولد ولد تجار سن بدو سمو سي كتابك سنة من لا أم يا خم نت سن خم خم يا تون من وا آية جوج من جوات سن كي يسوع القريش وهذا جل إن جوات سن كي يسوع القريش وعي كد يسوع القريش كفوا وما نرى ما أصل شفاعكم جسما نين وحنا الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء من يا خم يوم ñoo leen gën a ma ëllëg ba tax ngeen dama def sikk ak ñoom dina bokkaale ak ñoom jël jox as lëf ci samay cër loolu kat bu fekkee waa Quraysh dañ koo def ba tax yàlla wàcc ci ñoom aaya boobu képp ku ko def wala nga def lu ko nuru itam aaya bi day juliku ci sa kaw loolu képp ku am xam-xam xam nga ko ko amul xam-xam nag moom jaajeetu dëgg ولكم حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع السبل الاخرى غير الصراط سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سرنا وبتاي نيجا كينن يون لي بوكلك القران والسنه لي بوكلك الصراط المستقيم يا صحاب صحاب دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دفع موسى آه، رد او رد رد ودج وجب يعني كان بنت بسو دي رد اي رد يسو يجدك ورد ودج ولا جاب سيدنا يوسف كامل برد سوي اجا مدادينه rëddu wu digg yi mooy siraatul mustaqim mooy yoonu yàlla wu jub bi rëdd yu taw yi nag ay ñell la yoo xam ne ñell wu ne seytaane ne ca bopp ba fekk day woote fekk ko wuy mu yóbbu la safara kon boog daa di jàng wa anna haada siraati mustaqiman loolu alquran la li yàlla wax ne wa anna haada siraati mu ne sama yoon waa ngi nii man yàlla mustaqiman mi ngi jub xoj fattabiuhu kon nag topp leen ko wala tattabiu subula te bu leen topp ñall yi لله يلا وقف لين سما يوني تبلن توف نلي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نقوحنا نلي نلي لكن لك يوم يلا جيب لي بني جار في يوم جيب لي تبني جار في أي نلي أها وخرج الترمذي في سننه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وحنني يهودي banu israil dañoo séddaliku juróom-ñaar fukki mbooloo ak nangam nasaraan yi dañoo séddaliku juróom-ñaar fukki mbooloo ak nangam sama xeet wi daal ñu juróom-ñaar fukki mbooloo ak nangam benn mbooloo koy dem aljanna yonente yàlla Muhammad nee na sallallahu alayhi wa sallam xeetam wi daañu dem ba mos a séddalikoo juróom-ñaar fukki kuréel ak nangam kuréel yëpp bay dem safara ba mu def نك يا رسول الله بيدم اجينا بنا ولا خنا دجار في مجار ما تسمى الصحابه قال سيدنا محمد وقت حج بودي صلى الله عليه وسلم فانها رجال فين هذا رجال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بني إسرائيل تفرقت على سنتين وسبعين ملة من بنو إسرائيل بني السجل في جرم يعرف كمبولو أك أنيا وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين sama xeet yi nag daal ñu séddale ko juróom ñaar fukki mbooloo ak ñett كلهم في النار ñëppay dem naar jahannam إلا عدة ba mu des wenn menn mbooloo قالوا ومن هي يا رسول ñu ne ko yaa rasul allah menn mbooloo moo la nga xam ne moom dong moo ci dem àjjana mana قال ما أنا عليه mu ne mooy mbooloo mi nekk ci li ma nekk maag samay saxaaba yal na yàlla dimbale ba nekk ci li sayidna Muhammad nokk mook ay saxaabaam يلن يالا جدلو جد يلن يالا ما يأذن يجب تتفق نبن جارك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ما عندي لي قرآن يالا بو الله صلاة من تخوى فتنة من تخوى بودي يلن تجلوجي نسكفى يرمن جن أكتو جدل بانجر من يعمل لن كبير الصفر يانجو جمع شاكو الله تعالى وبركاته